Amadou Fofana c'est vrai que euh, li professeur Benoît Tine wax mën nañ ko duut baaraam soppeeku tax ba ñu tàmbalee gis wala gisoon bu yàgg ay jikko yoo xam ne xamuñu ko woon Sénégal. waaw loolu moom dëgg la boo xoolee euh, li nga xam ne ñu ngi koy dund tey dafa mel ni ne li ñuy euh, seetaan ci yenn film yi mun na wax ci tele yi loolu na ñuy jéem a produit def ko réalité suñu réew ci fàttin anam gune boo xalaat. et tey boo xoolee sax daanaka ci fàttin gi nga xam ne mi ngi am la ëpp tey nit ñi dañuy ànd ak sang froid boo xamante ne nii yow daf lay jaaxal. Mm-hmm. rey nit ki moom mooy njëkk a teew ca bërëb ba mel ni ne nekkul moom wala moom mooy dalal ña fa nekk moom mooy euh, daanaka boo xefee sax mu ranger les chaises takk bâche ak lépp. dëjël nit ki ne te fekk na ne moom moo ko rey alors loolu lam ñu war a mën a may tey jii nii mooy ñu am jàngat bu xóot ci mbir mi ci ne la ca ëpp en toile de fond boo xoolee mbirum xaalis da koy indi mm-hmm. te tey jii nii kat mun nañ jàpp ne nit ñi bëgg nañ xaalis waaye nanguñoo sonn loolu problème bi nga xam ne bu njëkk la mm-hmm. beneen bi moom mooy tey jii nii ñu ëpp ñiy def crime yu ni mel boo xoolee ba ci biir ay repris de justice nañ moom mooy ñan ñi nga xam ne dañ leen a bàyyee ci kaso yi ñu toog fa ci ay at yoo xam ne bëri na ñu par ci lu jaaree ci ay grâce présidentielle wala yeneen xeet yi ni mel ñu bàyyi leen kat ñu génn ñooñu ñuy defaat même crime wala ñooñu ñuy defaat ñaawteef li ñu mel donc cela veut dire que si suñuy prison yi am nañ jafe-jafe justement pour la nga xam ne ñu ngi leen koy woowee mu di maison d'arrêt é de correction loolu tey jii nii daanaka liggéey bi nga xam ne war nañ ko ci def kon des na ba leen beneen bi également di société boo xamante ne nii tey dañuy daanaka nëbbal nit ki ay ayibam mm-hmm. ci dëkk dëkkaan yi ngay gis wala ci koñ yi jaaykatu yàmbaa bi wala agresseur ba ci boppam moom mooy dundal gox ba moom mooy jox xale yi ñu ataay moom mooy jox ñenn ñu dépense ba tax ne ne dañ koy nëbbal li nga xam ne moom lay def mm. loolu bu demee bay am moom mooy indi après li nga xam te ne ni moom mooy réparable dana dem ba jur coowoo am fa wala leneen xale yi nekk ci tuxum yàmba reyante fa wala naan gi tamit mel ni tuleeg Mali donc loolu yëpp dama jàpp ne ni il faudrait que askan wi ci boppam mhm. dugal loxoom surtout ci li nga xamante ne nii moo jëm ci collaboration bu war a am seen biir mais boole ci tamit collaborer ak les force de défense et de sécurité ci njëlbeen ci ne nañuy jël seen matukaay ni ko olof Njaay di waxee xoddeeku balaa ngaa lakkale ci di teel di ñi def ko tu ñaawteef nañ ñu leen teel di signaler beneen bi mooy wàllum li nga xam ne moom mooy arme yi nga xam ne ñu ngi koy jaay paaka yi ñuy jaay ci mbedd yi pistolet yi nga xam ne ne mën nga ko am ci loo xam ne teguwul ci yoon war na am quand régulation boo xam ne war na ci am de sorte que tey jii ni nit ku faat kat dina ci mën a bàyyi xel ne lii nag moo ko defee am na lu ma ci fekk dafa may terminer moom mooy peine de mort il faut mu ñëwaat Sénégal mënuñu nekk fii quand même di compter ay bakkan ñuy faatu boobaak léegi boobaak léegi bu ñu waxee peine de ay droit de l'homme taxaw ne la way non peine de mort mun ñu ko fi def au nom de quoi dafa am droit pour dund kii am droit pour dee kon donc foog naa ne loolu portée dissuasive bi nga xam ne am na ko bu ñu ko defoon dinañu mën a permettre quand même ñu gën a mën a xeex li nga xam ne moom mooy faatum bakkan euh, grand Thierno Diop ñu jàpp tam ne ca yëmbal nee nañu am na benn nijaay ju doon xeex ak jarbaatam mu mujjee ko dëbb paaka jarbaat bi tam mujjee gaañu daanu nijaay jàng ci jamono ji ci loxoy police ñuy enquête mbir mi boo xoolee tam mbirum Aziz euh, dabalaa ak waali euh, ay nit la ñoo xam ne xamante woon nañu kon ça veut dire que am na loo xam ne mi ngi suñu biir nit ñi sañ a def seeni moroom lu métti te souvent duñ ko teg fen waaw sama xarit Fofana laal na ko. surtout bi mu laalee affaire u circulation arme. Mm-hmm. xam nga day phénomène boo xam ne du ñu def attention. Euh, Pierre Simon xam nga boo xoolee Sénégal dëkk yu ko wër bëri dafa am ay guerre ak ay fitna. bon léegi nag ay études waaye nañ ne surtout armes yi doon utiliser ci yenn dëkk yi. yu ci bëri après mën a dugg suñu dëkk yi nii tey. ci Afrique de l'Ouest ñun fi ñu nekk nii Afrique sowu jant. bokk na ci zone yi nga xam ne nii phénomène circulation. affaire trafic arme fa la ëppee parce que dafa bëri woon ay guerre mhm. guerre yooyu di am nag après armes yi dafay circuler avec beaucoup de facilité loolu nag defuñ ci attention mi ngi fii benn fléau bi getee Afrique sowu jant ba tey ñun ñu bokk ci Sénégal mooy affaire Sinébar xam nga parce que fii yoon la corridor la yoonu Sinébar la dégg nga am na corridor boo xam ne dafay jóge Afrique de l'Ouest souvent Maroc donc fii drogue bi fii transité dafa bëri c'est pas pour rien que fii nga nekk ni Sénégal américain yi ubbi fi benn bureau boo xam ne uniquement pour contrôler drogue bi la mhm. c'est parce que phénomène dëgg la fii donc utilise usage u Sinébar bi tey drogue bi dafa jéggi dayoo léegi nag comme ni mu ko waxee le nit ñi dañ koy camoufler parce que dañoo nekk ci ne ñaan affaire u masla mën nañ gis mbir après ñëpp na ci patt ah. ne te xam nañ ne lii nii bon lu lu dangereux la ba léegi nag moi je crois que il nous faut une nouvelle approche en termes de sécurité de proximité xam nga la mooy problème suñu réew yi souvent. Hmm. dañuy def ay jàngat parce que experts am nañ fi. man wóolu naa suñu fonctionnaire suñu professeur suñuy borom xam-xam mais souvent au niveau politique la mbiri di sooxe bi phénomène yi mel ni amoon ah ci atul diggante 2016 ak 2017 conseil des ministres boobu il faut moo waraat ko. am na ay solution yu bëri yoo xam ne benn plan bu ñu décliné woon mais ñu accès ko ci sécurité de proximité comme li muy wax nii après même conseil de quartier nañ ko war a revitaliser jamono yu noonu dañ defoon ay études parce que institution yi c' est pas pour ne ñu créé ko comme conseil de quartier parce que tey si koñ yi nii mais ñu bëri xamante wuñu sax mm-hmm. parce loolu mooy gën a accroître risques yi ci criminalité bi bu fekkante ne koñ bi dèjà ñu bëri xamante nañ mais dañuy mën a identifier wu boo xam koo xam ne ni def ko lu bon la ba fa ñëwee mais nit ñi dañ koy xam te yu mel noonu nag ci conseil de quartier nga ko gën a mën a nga ko gën a mën a régler bu ko defee nit ñi xam ko ak même les communes ah approche suuf je crois que moom la ñu war a revoir bon ak sécurité de manière globale nag parce que Sénégal mm-hmm. rek boo bokk na ci rare dëkk yoo xam ne ngay gis nit ki di dox heure bu ko neex trois heures du matin quatre heures du matin bu bàyyi euh, daanaka man sax tey bi may xëy si rek ñëw nii <laughs> daje naa ak ay ñoo xam ne nii tey ñi ngi mel melokaan boo xam ne bii nii xam nga boo am na noo xam ne yow boo boo boo boo boo koy tool ñu dal sa kaw wala yooyu li ñaan ku bu bu dabee waxambaane ci doxin bëra mm-hmm. donc véritablement pour wax pour man surtout ci yenn zones yi ci banlieue bi nii dafa amul dëgg-dëgg sécurité ba ca war donc il faut que ñu yokk ay effort foofu parce que am na yenn fléau yoo xam ne ñu ngi ñëw te bu ñëwee lëkkaloo ak lii bon ñi ngi koy redouté mu ñëw ëllëg mais bu ñëwoon tey lëkkaloo ak lii nii dafay gën a garaaw foofu. Euh, ñu doon wax sànq mbirum drogue ak lii nga xam ne diwaan bu fim Fimela teg na ko loxo ci diwaanu Fatick ne mu ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri kilo ak ñeent fukk ak juróom mu yàmba boo xam ne ñu ngi ko jàppee ca géej ga ca boori jifeer ci ab boo xam ne ñu ngi ko def guddib euh, dimanche jëm altine agent yi dañ doon dàkkante ak ñaari gaal yoo xam ne drogue la ñu yeboon ndekke teg nañu loxo nag ñeenti nit ña ca nekkoon gaal gone ne ak capitaine am ak ka di gunge euh, division de de la communication bu relation publique maanaam bànqaasu douane bi yor bu jokkoo beeg askan wi xam la na ne drogue boobee ak gaal yi mboole seen ñu ngi xayma seeni i valeur ci lu tollook juróom benn fukki million ak juróom ñeent ci kopparu CFA e ci wàllu politique wala bokk institution réew mi ñu ngi leen ko doon junj sànq ci boppu xibaar yi bureau bu assemblée nationale dina daje tey président assemblée nationale Amadou maam Diop moo convoqué membre ya tey jii suba la leen euh, woolu soxla leen bu 11h30 euh, jotee ci assemblée nationale muy convocation bu am ci jamono ja nga xam ne président de la république sàkku na assemblée nationale daje ci session extraordinaire suba arxemes ngir ñu càmbar nu ñuy modifier constitution bi soppi constitution bi ngir mën fee jëlee au conseil des collectivités territoriales Sénégal ak conseil économique social et environnemental waaye bu ñu sukkandikoo ci Doudou Wade ne yëf yi dina xaw a jafe pour mu nekk suba benn euh, assemblée nationale mi ngi ci vacances ci jamono ji donte nag am na ay réglement yoo xam ne teg nañ ko ca waaye ca wet ga tam moom dafa jàpp ne président de la république wegul assemblée nationale ndax njëkk nañ ko fee dégg mu ne premier ministre mën na def déclaration de politique générale mën naa ko waxee noonu fu ko neex euh, fudul assemblée nationale te kon loolee euh, leneen lii firndeel na ko ci li mu convoqué assemblée nationale te amaana du euh, cëram ñu déglu euh, président du Wade nekkoon fi député ca assemblée nationale.